Eh, sama gars yi siyaar naa leen bégg naa leen gars yi di leen wax ne continue kontaan naa ci yéen continuer leen di abonné gars yi tey bës sem gars yi yi dee leen bës seem bu leen ko fàtte damay gref de dinaa toog 2 mois yoo xam ne du ma dugal vidéo te boobaa dooteen leen reetaanati tey ki may woo benn paa paa bi dafa takk jabar mais dafa ragal jabar ci maanaam ko ñaareel la waxul dara dara dara dara dara dañ ma koo jaay nag dem naa ba testé ko xam ne kii dafa ragal ñaareel jabaram léegi nag sama diggante paa bi fan lañ bëgg mu jox xool leen ma xool ba xam tey dina ma am wala man maa koy am gars yi continuer leen di abonné continuer leen di abone continuer leen di abonné yi ñu abonné gud continuer leen di bës sem gars yi zem commentaire salaamaaleykum. waaleykum salaam. Père Ngagne naa def. maa ngi di sant rek. sant jàmm. waaw sant bu baax a baax a baax. man la Ibrahima doomu Soxla bi nekk Gambie. ah Ibrahima. Ah. doomu Soxla. doomu tam nekk Gambie. ah waaw wax nga dëgg wax nga dëgg wax dëgg Ibrahima. waaw maa ngi maa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax kay. damay dégg mu lay wax rek mais kenn duñu xam naa jotuñoo xamante quoi. waaw wax nga dëgg ba ma fay gej gam bi ma fay gëj bo xale bu ndaw bu tuti war nga na nga def nak ñu sant yalla alhamdullilah wa yalla tant yag bu baaxa baax wa ñu xam ñu ngi ni sax di ñew ndax mer bi da la mujjé may turundom bi ñi ngi ni di ñew sax Dakar ndax mer bi da la mujjé may turundom bi degguma li wax dama bëgg wax bu baaxa baaxa baax lan nga wax lan nga wax waaw lay bañ a sonal moo tax léegi turandoom bi mu yoroon. waaw dana ko may léegi pour ko ñun na si. eh xoolal mu fontoo laa la wax yow da leen may salaamaaleykum maaleykum salaam sama yaay nii sama yaay naa daf may daw daw may may euh, jabar xoolal man gis nga fi mu toll nii seen si néeg su ndaw su tuuti laa yor xamala aw ma fu ma dugal Euh, sama njaboot gi sax ba fay dugal keneen man dun maa héberger kese nga ñëw taxaw naan sama yaay dala dala may jabar xoolal bu leen ma fonto laa wax tey bu leen ma fonto ëllëg sa yaay yabu ma ñaari yoon wala wala wala ñett yoon ba ñëw ba ñëw di la woo naan man la Ibrahima nangam ak nangam bu leen ma fonto laa wax de waaw loolu mu may jabar eh xoolal bu bu ma waa defal nag ma la waxuma la gis nga bu ma bu leen ma fonto laa sa yaay bu leen ma fonto laa ah, nga ma de sama yaay dala dala may jabar takku ma ko tey takku ma ko ëllëg dun maa hébergé nga ñëw dañ dañ may jabar ah ñi ngi ñi ngi ñi ngi biire xolal fu ngeen man tollu ngeen yam fofu ngeen wat bandu la wax nga la may jabar xabal la may jabar xolal du yegal lako salam alaykum malikum salam dal dal may jabar neena dara baña sonal motax quoi ba man sonduma nak sonduma dal na la lu tak ay ay jabar li may li may sa li may sa ma ci dara loolu mooy naa ma dem may may jabar. waaw kon ñu ngi ñëw kon ñu ngi ñëw léegi nii. léegi xoolal xamaa la xamal bu leen ak si fase naa ko neel sa yaay nee ko sama yaay nee na fase na ko ah neel sa yaay fi ngeen toll ngeen dëppaat dem Banjul fase naa ko. déedéet man loolu mënu ma koo wax de. Eh, di ko wax nag waaw yow mi am sa sa coppite. yooyu ma am seen coppite ba ñëw ba ñëw ah di ñëw di naan sa yaay nee na damaa takk jabar léegi ngeen départ fase naa ko. léeg kon xaaral xaaral xaaral maa ko meer bi kon. waaye xoolal xaaral ma def xaaral ma leen xool wala sa centre sax laa jëm nii fi mu toll nii. Ah? police Kambaaw police Kambaaw laa jëm léegi dama wax ko commissaire bu bu bu leen ma fontoone bu fi agsi tey bu leen fi agsi ëllëg man du ma éversé kese saa ma noonu ma takk naa jabar. déedéet moom ñaari topp dong la indi. waaw yaa fi ngeen yem fi nga fi nga tollu xawma foo toll xawma kaolax nga tollu xawma kara nga tollu fo fo man tollu da nga da nga ngeen fa de pat dem dem bàjjul wala sinon sa xal sama coupé do da nga ma yak alors di nga di nga wuyuwaat de soo yàlla waaw ay leen ya waay senegal amna ñu ragal de waaw moom nee ay yaxam la la laaj ay yaxam. man man suma laaje sama yax tamit man maa sama yax bu len ma fonto ma ngi sama yakh dedet ma sama yakh la ma laaj dedet ma sama yakh dedet dané soxna si may na la ko pare ay yaxam la la laaj même boko don ray sax du ñëwaat mo yéen xam bu len ma fonto man sànga bëri laa jëm ni légui wala ma dem sax police ci kambaaw moo ma gën a jegeñ sax waa léegi légui léegi ndax ci kambaaw ma gëna jëgëñ jegeñ moo ma gën a jegeñ ñi caara yi kon xam na né xaaral sax mo jog ni lé sa dem dem dem sa na bari wa bu àggee looy naan ay police sax man sama juum sax naan ay police ak ay gendarmerie xoolal lu ma wax lu nekk dan maa dan maa sama sama rak moo ñëw di ma may jabar te man dan maa hébergé waa léegi kon xam na ne def léegi baa ngi woon kon waxtaan ak non xoolal soxlawu ma ko ñun moom ñun moom ñi ngi ci woon moom ex waa xoolal alaaji xoolal bul ma fontoo man sa ndijaay laa te du wax di waxat benoon laay wax te jeex nah. jabar da nga di xaar ba nit ki bëggal ko boppam takal ko jàpp takal ko boppam nii ngeen di def rek di tas kër kër jàpp yow xamu leen xamu leen man nu ma toogee nga ñëw taxaw naa ma dan lay takal dan lay takal jabar bu leen ma fontoore waaw léegi de mer mer moom xoolal xam nga non xaaral dañuy waxtaan waaye wuy ma waxtaanunu waaw léegi xaar ma la waaw waxtaanu ma waxtaanu ma waaw léegi xaar ma dama ne li ngay li ngay wax ak man loolu laa mënut a dégg dama ne mer bi def na erreur quoi waaye moo moo xam dama ne yow nga ànd ko mom deden man mom xawma ci dara déedéet ko mom lutax moom lu tax dara ko déedéet wax nag ko yaay bala nga bala nga def li di ko def di ko def sama yaay na wo ko ngeen waxtan ci bu djubo ci ay kaddu man loolu la xam ah. waye waxtan ngeen man defoo man xëy salam alaykum wa alaykum salam jabar ak te man duma héberger benn si néeg su ndaw su tuuti la yor ni ci bu bokkal ak ak sama ak samay gone laa ñëw taxaw nag da lay da lay may jabar loolu mom da man man man waaw waaw li la wax nag dëgg lay don nak man fu ma sax deug lay don waaw loolu moom li nga wax nii dëgg la de waaye dama ne. dama ne moom kii ndaw si sax dafa man ne nee naa kii waroo ko may kii tonton nga ndax ndaw si dafa ponkale. yéen a xam waaw waaw xam ngeen loolu ba pare lu tax ngeen ngeen di ko di ko def lu tax ngeen di ko def xanaa da nga bëgg da nga bëgg tas tas tas sama àdduna. ndaw si da daa gaaw a xeex moom. bu xe bu gaawee xeex ak bu gaawte xeex ak lépp loolu lépp laa ci xaw ma ko lijjatiwuma ko yéen a may tax a juum sax di wax lu nekk. ah man sax man man lii nan laa koy nan laa koy waxee tey bu ngeen xëyee xëy xëyee xëy na ko këpp sama sa sa samay tànk nga xam ne ni kii doon doon ko yor kii nu yor ko yor ak njabootam yoram lépp. ah dàll yi muy sol sax jabaram ak ko jotal. excellent ak yéen yéen mi su lu man sol lu nekk lu may sol lu nekk yi ngeen yaakaar ne man dama dama am àdduna la ci biiram lu ma am lu nekk sa yu mu pànc ci biir kër gi moom moo ma yor moo may defal lu nekk konoon du ma ko waral àddina mënta neexa neexa neexa wala àddina naqaree naqaree naqaree ba mu wutal ko keneen defuma ko tey defuma ko ëllëg duma ko def di ree duma ko def di jooy ñun da bañ ñu de bisi ki tay nak buñ ma woo téléphone ma lay coupé police la jëm ni nek ci kan ma jëm ni xolal sama bari na ji bari na kala sama coupé la bu la ma fonto bu la ma fonto oh damaa ree ba nar a coroxante ni munu mënutuma wax gay yeen la laa ngeen indi sen xalat li nan ngeen ko gisee ci commentaire yi ki dafa ragal jabaram wala dafa gore wala lan motax mune du tak wuccu c'est man dal man dama jommi jommi na ay way jommi na gay ma maa leen indil kaa bu nek way bi mom tay doyna war waar ngi xaar nak sen commentaire te gay bu leen fatte di abonné bu leen fatte di bës sem am yenen yeneen yu ko gëna graw yo xamanteni ni dina ñew incha allahu rabbi gars yi nekk leen ci jàmm.